non mais nit ku ñuul a bon yéen ngeen ne doo leen bàyyi Macky Sall yéen yéen Macky Sall mënoo leen am président bu ko gën yéen xanaa jaaroo leen si yoonu jam ñaajo bi yéen Macky ngi liggéey lu rëy a waaye foo leen dikkee rek Macky defu fi dara Macky def fi dara yéen boo leen jëlee Macky Sénégal yéen koo leen fii teg kan ngeen fii teg bu màggatee baa mu seppe moom Macky Sall kan moo koy donnu lii de ma jaaxal te ngeen a jàpp seen président bi nga xamante ni gaynde la liggéey rek lay def liggéey lay def de bàyyi leen di wax lu bon di nëbb lu rafet dee leen wax lu baaxam di ko waxal lu ñaawam ni ngeen mel ñaaw na ku génn wax ngeen ne non non non Macky Sall nanga may leen ñu troisième mandat may leen ñu ko ñu jël Sénégal soppi ko comme Dubaï déjà def nañ ko comme Paris makki def na ko comme Paris da ngeen ñi may tuuti rek ñu def ko comme Dubaï woon daa naa ni ay ñoom mambay mu baax mi ay Souleymane Jules ah. li ma métti ci yéen mooy dangeen am ay gaynde te xamoo leen ko yéen yéen a ngi quatre gaynde quatre yoo leen xamul benn muy Macky sàll ñaar Mame Mbaye mu baax mi ñett Souleymane Jules Diop ñeent xam ngeen ko de Aly njaay Ndiaye mi nga xam ne gàcce gu mu fekkee faj ko kenn du moom ay waay liggéey leen te jàpp seen gaynde yi te xam ne mun nañoo jël Sénégal soppi leen ko comme Dubaï Macky Sall de moom man mooy sama président tey mooy sama président suba de tous les façons bu leen neexee ngeen wax lu leen saf man loolu frégeew ma ñeente man li may wax mooy bàyyi leen man dama seen heure bu may seetaan journal non Macky nangam Macky nàngam mais non nit buy def lu baax da ngeen koy wax bàyyi soxor geeg iñaan gi tuuti Macky ngi liggéey il faut ngeen nangul ko ko Macky ngi liggéey Mame Mbaye Niang fii la génn berki démb ba wax ngeen wax ngeen traité ko de tous les noms Mame Mbaye nga xam ne boo xeereen balaa moo waxati déwén sama waa jooju nee naa leen Mame Mbaye Souleymane Jules Diop ñooñu ñooy ñi nga xamante ni. da ngeen a soxor te troisième màndaa bi ngeen di bañ nag da ngeen ñu koy jox soo leen ñu ko joxul dañ koy poqati jël ko teg ko ci loxo sàll ngaari lam tooro mu gérer réew mi yéen boo leen dindee ma ki kan ngeen fiy teg waa wax leen ma kii ah kale yee fitna ngeen fi bëgg a teg ah waa kon baax na suñu borom day rëbb na kala yee fitna man di dugguma ci loolu. te boo leen ñu ko joxul nag dinaa ko poqati kenn mësu koo gis am makki indil makki noo makki lii makki lee non danga naan makkee ngi liggéey su juumee ngeen ni ko juum na waaye da ngeen a soxor waaye Macky Sall ku ko waxati wow na baa xam ngeen ni coow bu ma si duggee léegi mu jeex damay màttee di gàjje xaju garage ngeen dangeen sa sadik mbaw waaye man la Fallou Dieng te birig dawul coow waa déggal loolu xale yi dee koy waxa seet bopp dëgg neexul lépp lu takk si mag yi rek nee naa la liggéey rek la ñuy def ku weddi laa jël xumma le futur maire de kaw Kaolack kenn du moom bërki démboo njaay la joxe ay toni toni toni toni ceeb néewtu doole yi ñooñu gàcce gu ñu fekke faj ko loolu si seen deretu président la nekk muy mag yi